mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku seen ñaan dellusiwaat seen émission bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale ci seen site bi ñuy wax ak actu ñu fas yéene dellusiwaat ci tomb yi <coughs> neen ko baaxoo def waxtaanee benn tomb bu itteel boo xam ne danañ ci mën a am njariñ ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne nag ñu ngi topp ci jataay bi di ñaan yàlla na leen yàlla defal sutura ak teraanga rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ak ci réew mi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla waxtaan wi doon njariñ ci ñoom waaye doon njariñ ci ñun ñi nga xam ne ñun ñoo koy génne di ko ànd ak ñoom di ñaanal bu baax a baax soxna maam xari Mbàkke Murtada yàlla na ko yàlla may fan wu gudd lool ak wér ba yéenam ci liggéeyal Serigne Touba matale ko di ñaanal soxna moomi Kebe yàlla na ko yàlla jàppale ci liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba. ñu dellu si jotaay bi waxtaan loo xamante ni xañ na dina itteel ñaara lay doon mooy waxtaanee ci wàllu wërsëg ak wàllu datu ak maanaam dig bi nga xam ne moom la sunu borom digal nit ki ne ci lay jóge ak wàllu wërsëgam nga xam nit ki moom. gëw ma ne daanaka ñaar yooyu mën na ci dara lépp mbiri yàlla la ak leneen lu dul lool it mbiri yàlla la waaye danoo gis ne ñaar yi nit ñi dañ ciy sonn coono boo xamante nii dafa mel ni jëru ko woon ndax yàlla mi la bind moo la gàddul li ngay dugal ci sa biir te doomu aadama ji nit ki su fekkee ne juddu na wala balaa juddu sax ci la ñuy wër wërsëgam ak fi mu heure bi fi war a jóge xam ngeen ne nit ki borom xam-xam yi nee na su amee juróom-ñeent fukki guddi. ci biiru ndeyam ci la yàlla di ëf ruu gi defal ko ruu def ba xam góor la walla jigéen la wala ko xees la wala ñaata at lay dund wala nangam lan mooy doon ay mbiram loolu lépp suñu borom da koy date am nañu wax sax ne ñeent fukki guddi gi ci la ko yàlla suñu borom di bind waaye lu ci mën a am rek day wane ne nit ki kon li muy ngërt ngërt ak di ko def fekk na yàlla date ko ba noppi moom mënu ci dara mënu ci dara moo tax doomu aadama ji ko wal ñaari wama xalaqtul jinna wala insa illa li yaxbudoo loolu mooy waru garam wama min dabbatin loolu wërsëg wi nga xam nit ki da koy am risqu maanaam wërsëg woowu nit ki yàlla moo koy jox moom mënu ci dara mënu ci dara li nga war lekk ci sa biir li nga war a dund fan ngay faatu fan ngay faatoo loolu mbir yi yàlla la yàlla noppi na ci bu yàgg-yàgg noppi na ci moo tax nit ki jarul mu ci sonn jëru ko sëñ Saaliwu danoo firi loon mbiru àdduna ak alaaxira dafa wax ne sa biiru bopp yàlla mi la bind mooy wërsëg li ci def sa biir bàmmeel nag loo ci deful doo ko ci fekk ndax yàlla def laa bind ci wërsëg ak li nga war a dund loolu nit ki mënu ci dara mënu ci dara moo tax nit ki mbir yooyu daf cee war a tayeel sax da cee war a tayeel teewul nag war naa sabablu waxuma mu tayeel rek bàyyeeku wërsëg bu la ko yàlla bindaleet danga dox jëli ko da dox jéem caa def effort caagee nag loolu bu fekkoon ne wërsëg liggéey dong dong dong moo koy maye kon am na li ko wolof yi waxee boo demee ci marché baari njënd moo fa gën a sonn moo fa gën a néew wërsëg waaye li ci am solo mooy aw ñaqam la wu ko lew te yonante bi salaahu salaam dane doomu aadama dundewut ci biiram dugalut ci biiram lu gën a lew aw ñaqam lu gën a lew xoolal wërsëg ni ko yàlla séddalee ni mu ko séddalee da ngay defe ne séddalewu ko dara ci masala xoolal tey poor bi ñu ne bateau ceeb wàcc na ci oto yëpp rang ci Sénégal yi jóge Casamance yi jóge Louga yi jóge Touba yi jóge Nangam fu ci nekk oto jóge fa ay camion jóge fa camion yi sarse ci bato bi ñi jëm Tamba ñi jëm Kaffrine ñi jëm Touba ñi jëm Nangam xam ngeen ne foofa de kon fa la wërsëg yi daal di tàmbali tàggaloo ceeb bi nga xam ne dafa jëm si Touba ñu indi ko marché okaas waa marché Saam jël ci Bokatul Mubaarak jël ci waa marché Ngiraaneen jël ci waa Nangam jël ci xoolal foofu ni muy détaillé loola dikkaat ci bitig bi ñu indi ko ci bitigu koñ bi nga jënd ca ñaari kilo ci saako bi kee jënd ca ñetti kilo kee jënd nga xam ne ki koy indi di ko togg ci kër gi nga xool ceeb bi lim ciy tànn ak lim ciy tuur li ciy doon xooñ waaye yow nga yëg ne la nga ca war a lekk lu tuuti la te loola kenn mënulu koo xañ xola fa ceeb bi jóge siin la jóge wala ind wala fu mu mën a jóge waaye ceeb boobu dañ koo détaillé ñii jëmale mbuur ñii jëm Tuuba ñii jëm mu dikk ba fekk la ba ci sa koñ ba ci bitig bi nekk sa koñ ñu jënd fab saako wala mu jënd ci ñaari kilo ñu indi ko ñaari kilo yooyu buñ ko taajee la nga cay lekk lu tuuti loola kenn kenn mënu la ko woon a xañ xolal li ciy tuuru nga xam ne yooyu doo ko lekk di nga dank ab dank ba jàpp ne dank boobu lépp nga war a lekk ngay lekk am lu ci tuuru ci suuf loola wërsëgu muusi lay doon wala wërsëgu picc wala wërsëgoo ñeneen bi nga lekkee ba noppi mu des ñu ne lii de waa kër gi dina leen regg xam ne dina leen doy ñu lekk ba noppi am koo xamante ni donga ba ñëw ñu tibbal ko ca wala ñu lekk ba noppi saraka ca lenn la ñu dem bett ji ko sax xanaa loolu kay mooy wane ne yàlla xoola ceeb bi fa mu ñore siin nga xam ne yow xamoo dëkk boobu ñu fexe ba indil la ko noonee yàlla def nag di wommat ceeb ba di ko wommat di ko jaarale di ko indi ba mu ñëw noona la yàlla di wommale sa wërsëg moo tax jërut sonn jëru ko li nga koy li jar sonn daal mooy wut ko ci lu lew wut ko ci lew dafa am benn waay boo xam nee na dama dafa dugg ci benn teen nee na bi mu duggee ci teen bi nee yàlla dogal mu daanu bi mu daanoo ñu ne faatu na ñu daal di koy xool génne ko bi ñu ko génnee gis ko mu xaw a kii ñu daal di koy njaral a soow su sedd defal ko ko mu naan ko xaw a ko bi mu ximmilikoo ñu laaj ko ne ko waa yow noo doon def ba daanu ci teen bi nan dem ca teen bi nee na mu dikk ñoo ko waaw noo def ba daanu mu naa ah, man daal dama doon yër di def nii rek far daanu bi muy wër expliqué waat far daanuwaat ci teen bi bi mu daanoo ñu génne ko mu faatu boroom xam-xam ne lii de mooy mbiri yàlla dëgg-dëgg ndekete waa ji am na soow sum fu waroon na naanaat ci àdduna soo xam waroon naa génnaat waroon naa dundaat ay minutes tamit yu mu waroon a dindaat yoo xam ne jeexut woon xam nga ne daanu bu njëkk ba ak mujj bi benn la. waaye yàlla mi nga xam ne moo ko narut woon a rey ca bu jëkk ba moo ko bàyyi ba mu ñëwaat mu naanaat as soow tuuti toogaat dundaatu ay minit soog a faatuwaat te kenn mënu ci woon dara kenn waa ji jóge ci këram taal ab otoom di daw daw bay àgg dëkk ba muy àgg wala tàggoog waa këram ne leen maa ngi dem bi muy laata dikk mu accidenté faatu xool oto boo xamante ni da ngay gis maanaam oto bi lu mat juróomi nit wala juróom benn ñépp faatu ba mu des kenn nit kenn kenn kenn nit xolal loolu nga ni a ah, oto bii de xanaa kenn génn ci ñëpp faatu ñu ne la kii de dara jotu ko dara wukk ko ñeemam danoo faatu ba tëccu luñ ci man mënu ci dara mënu ci dara nga xool oto boo xamante ni waa ci këram la xëye ne day wàcc wàcc ba ci escalier bi muy laata jeexal escalier li faatu wala mu nekk ci salle de ba di sangu wala mu nekk di julli bi muy sëgg bi muy laata siggi faatu na kon nit ki na xam ne dundam yàlla moo yor bakkanam ci loxoom la nekk wërsëgam ci loxoom la nekk <coughs> wërsëgam kenn mënu ko ko xañ xoolal waa ji nga xam ne dafa jóg di waxaale ku ko filmaal wala ku ko jaay nangam ku nekk dem na ca ba ñëw ci ki nga xam ne moo mujj koo xamante ni xamante wut ak moom sax ñële mu doon waxataan xamante naa ak ñoom ak mbokk sax dox na ko waaye ñooñu mënunoo lekk wërsëgam bi waaye jii nga xam ne dëkkut ci réew mi xamuñu ko sax kooko moo lekk wërsëgam ndax fekk ne moo munu ko woon moom it munu ko woon a bañ a génne. yenn saa nga dégg nit ñi di waxee noo xam ne naa diw dafa warul woon a dem bu demut woon loola du ko dal waaye dem gam dem kooko yàlla programme woon na dina dem kooku mënul woon a ñàkk bañ a dem waaye yàlla moom programme am dafa waxoon ni kii dina fi jóge dem xoola nit ki nga xam ne Sénégal la dëkk nekk fi ay nangami at jóg fii ne day faju ji France wala dafay gane ji wala dafay tukki dem ba foofa ñu rey ko maanaam yàllaa ko waxoon ne ko yow boo dundee juróom-ñaar fukki at wala juróom-ñett fukk dama lay yóbbu ñeenti fan ngay dem France boo demee fa ngay faatoo wala boo demee Amérique fa ngay faatoo wala boo demee aji ji màkk foofa ngay faatoo loolu ci nit man kenn daa man dara dara dara ci mbir yooyu moo tax nit ki dafa war a gëm yàlla maanaam li nekk ci loxoom na xam ne loolu yàlla moo ko ci def li génn loxoom yàllaa ko ne faaw mu génn nit ki dina maye ba noppi di ko réccu fekk ne mënu ko woon a ñàkk bañ a joxe nit dana maye xaalisam alalam may ko nit ba noppi réccu ko lu tax mu réccu ko mooy yàlla moo ko moo ko waxoon ne ko di nga ko génne moom sañu ko woon a bañ xoolal tey añ bi la tibbal ne diw sàngam leen tibbal añ bii pour mu lekk ko bi muy laata ñëw ay gan ñëw ñu jox ko gan ña te moo ne waa ji leen ko borom kër gi leen ko préparé loon bàyyil ko fa mu nekk nit togg na añ sax ci këram ñëw ba war koo lekk ay gan ñëw ñoom ñu taalaat yeneen lekk leneen fekk na loole ñu taaloon du seen waru gar waruñu ko woon a lekk yàlla moo ne leen woon du ngeen ko lekk nit ki nga xam ne tëbaski gi jot rey nam xaram ba noppi ñu koy toog di ko feesal ngir ne ko toogal ñu lakkal la res wi mu toog di xaar res wi bi res wi laata lakk bi laata noppi mu faatu fekk na yàlla ko ne woon doo lekk tey ci res wi kon nit ki na gëm yàlla mbir yépp noonu la ko yàlla si xoola bitig yi dend bitig yi ni nii ràngaloo waa ji ñëw di jënd si dikk bi mu dikkee dugg ci bitig bi waxaale jubóowul dem ci bee waxaale dem ci bi nekkate bitig bi muy njëkk jaar du fa jënd dara ca ba ca des lay jënde yàllaa ko ne yow di nga dugg ci bitig bi waaye doo fa jënd beneen bi ngay jënde kooku wërsëg wi wërsëgu kee la moo tax waa ji jërul muy kar diw jërul muy waat naa ko lii laa ko jëndeek ñëwal ma jaaylaak am naa ko nangam yooyu yëpp toogal rek yàlla moom programme moom noppi na ci bu yàgg yàgg yow nag yow mi noppiwul nag yaay kërti kërti coono bu nekk nga daj ko jàpp ne da nga ko war a am su sa liggéey jotee liggéeyil su wàcc jotee wàccal sooy génn nag xamal ne yàlla moo yor sa din dellu moo tax nit ki suy def dara wala dara wax na wara wax na incha allah su ci yàlla àndee ndax lu yàlla àndu du sotti dinaa def nangam su ci yàlla àndee yooyu ngay programme yi yëpp xëy bu subaa dinaa xëy ca palaas bu suba far ba bët di laata set far nga faatu dinaa la jox nangam. programme la waaye loola yàllaa koy sottal nekkut ci sa loxo yow li nga man mooy programme yi waaye loolu lépp ni moo tax ginnaaw mbir yi nekkut ci sa loxo nag ki mu nekk ci loxom nga war di diisool ki nekk ci loxom mooy da war a wakkir lu ci moom di sabab lu ci moom di ko bàyyi xel ginnaaw nekkut ci sa loxo ki mu nekk ci loxoom yow dee ko bàyyee programme bi suba dinaa céetal wala ginnaaw suba weer sàngam dinaa jël loola nekkut ci sa pro sa loxo loxol yàlla la nekk bëgg naa ko de incha allah bu weer sàngamee dinaa céetal bëgg naa incha allah bu weer sàngamee dinaa génn def nangam yooyu yëpp mbir yàlla la moo tax kon daal mbokk yi ñu dellusu di leen sant te xam ne mbir yi jaru ko jaru xuloo jaru xëccoo as ndaw naa dama koy nangam ndaw sii nga demoon ngoraje ko ca ndaw sa ca tàmbali mu ne la duma la duma sëy ak yow wala ay waajuram ne lu la ko may yàlla def na fi ñu toll boo demee moom ngay sëyal dem na ba sëyi lu mat juróomi sëy ñëwaat ci yow sa wërsëg la woon oto bii nga doon waxaale mënoo fexe ba jot ci nit jënd na ko keneen jënd ko ba mu ëlsiwaat ci say loxo dàngam doon nga ko jéem a jënd di ko xëcc nit jënd na ko far may la ko kon nit ki na wàkkirlu ci yàlla te mbir yi mu bàyyee ko yàlla lii nag tomb bu tuuti la danañ ci indiwaat waaye nit ki daal war naa bàyyi ñaar yi mooy wërsëgam ak ab digam nekkut ci loxoom dëgg la nit ki war naa sabab lu ngir gudd fan war naa sabab lu ngir am waaye loolu rek la ci dem waaye garantie gi nag moom yàllaa ko yor murtajan minnatun lana jariun